waaw di nuyu monsieur le président di la jox sa waay di wax ni kontaan nañ ci lii parce que yàgg nañ bëgg am occasion pour wax ak yow te amuñu fi yu jaar di rafetlu aussi lii di la wax ni que comme si affaire emploi la ñuy wax ba tey Pikine arène nationale def naa fi trois ans bientôt octobre quatre ans dix personnes ñooy liggéey si arène nationale ak ni mu toll kaw ba suuf dix personnes ñoo fi liggéey te liggéey bi aussi fixé wul dix man damay liggéey semaine maag sama quelque morom semaine toog semaine kon mois bi deux semaine lañ fi liggéey te journée douze mille cinq cent la soo liggéeyee lundi ba vendredi douze mille cinq cent gay am douze mille cinq cent yi soo amee deux fois day nekk vingt cinq mille par mois si ñun ñu xam ne wuñu fenn bëgg liggéey mooñ tax a jóg nekk ay doomu pikin bëgguñu def lu bon bëgguñu wax lu bon si suñuy nawle ne ci biti heure boo génnee jël leen ñu arène nationale koo ci expliqué ne que ñun nombre ba fa nekk sax matuñu duñ la gëm te chaque jour ministre waxoon nañ ko ko Matar Ba dafa ma ne woon stade bi amagul directeur moo tax mënagu ñëw jël yenn yenn engagement yi mais tey ñun président yow la ñuy tàllal loxo ñun jigéenu pikin ndawu pikin jigéen ñi liggéey arène nationale nga jàppal ñu te yàlla rek tax nga dimbal ñu ci liggéey bi ñu jéem ñoo fixé hôtel yu salaire di ñu fay même fay bi aussi nit ñu koy fayee neexuñu parce que su ma liggéeyee vendredi ñu ma douze mille cinq cent ma dem dépensé ko ñëw toog toog quinze jours semaine du ma liggéey ma jëfandikoo leen semaine bi ñu joxaat ma douze mille cinq cent kon mois bi pour ma faj sama yenn soxla sax problème la ñun waa Pikine ñoo ngi lay tàllal loxo aussi di la wax ci DER bi nga wax que ak financement yi wax dugg na Pikine dugg na parce que soo waxee dugg na gëm nañ dugg na mais dafa féete boor dañ koy politiquer ku bokk si ñoom doo séddu loolu lañu war a bàyyee parce que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk nañuy ànd ñu ñëpp lu génn ñu séddoo su dee cent franc ku nekk li ci war a am ko mais tey soo génnee joxe dañ koy yemal. tey monsieur le président soo joxee ay financement même bourse familiale aussi lépp sama yaay bind nañ ko si bourse sama yaay mënul wax bind nañ ko si bourse man si bi ñuy dimbali ceeb bi ci Covid bi laa soo ko xam ne sama yaay inscrit nañ ko sa bourse musu koo fayeeku Covid bi bi ma demee di jëli ceeb bi ñu jox ma deux benn bi ñu ma sa yaay parce que dafa biir si bourse bi dañ koy fay man ne sama yaay musuñu koo fay. te bari na ci ay samay moroomu yaay yu ne ci dëkk bi yu ñu bind di jël seen xaalis di ko viré feneen joxuñu ne ko ñoom ñu ko moom mbir da nga ko jox ki ko moom nit doo lekk lu dul li nga moom soo yëkkatee alal teg ko ci ay nañ ko jox ña ko moom mais tey doo ma jël man jiital ma bind jox ma ma xol ñi ma neex jox leen xol ñi ma neexul jox ma leen loolu lañuy xeex pikin ñu ñëpp benn lañu nañ ñu jàppale lépp lu dugg pikin nañ koy seddaloo wasalaam <laughs> jërëjëf soxna bind binta diouf euh, maa ngi lay sant bu baax si kaddu gi euh, dina dina laaj Matar Ba ministre des sports pour seen dossier war a mun toll pour ñu régler ko régler bi mooy ñu embauché leen déjà war nañu jël ay stagiaires si xëyu ndaw ñi xëyu ndaw ñi amoon na au moins six cent ñu jël ñoo xam ne ay stagiaires lañu pour ñuy nekk ci stade yi di ci jàppale bu bu sportif yi ak amateur yi kon yéen ñi nga xam ne yéen a nga fa boobu ba léegi incha allah dinaa jël engagement boobu ñu jàppale leen recruter leen jox leen itam euh, nekkin bu rafet beneen mbir mi mooy li nga wax ci bourse de sécurité familiale loolu dina ma dinaa jël Matar Ba waaw xaaral Matar Ba sax woolu naa ko comme ça mu wax ma waaw Matar monsieur le ministre waaw maa ngi fi ak waa Pikine ñu may dégg nag ils sont je suis en direct avec eux na benn soxna bu siiwur nga leen. siiwur nga leen. jot nga loo loo wax ci li Bintu wax dix personnes ya fa nekk moom nee na bu liggéeyee bi semaine bi douze mille cinq cent lañ koy jox su demee mu toog une semaine doog a ñëwaat ñu doxaat ko douze mille daanaka weer bi presque vingt cinq mille lay jot. waaw loolu doy na war na taal. bi def étude d'impact social et environnemental est que mën a ngi koy dégg dafa am collectif bu nekkoon parce que ñii dañ d'accord ñii d'accord ñu bi ñu buñ ci étude bi dañoo jëloon engagement ne ñiy liggéey ci arène bi ci mooy ñu dëkk ci weti arène nationale. léegi il y a quelqu'un qui gère GIE mooy recruter ñooñu. quelque lan di leen dafa am benn GIE bu nekk foofu. xam naa e. président ñi jiite ñi recruter les femmes Nous avons maintenant maintenant arène nettoyer déjà j'ai demandé à la direction des infrastructures pour que nous pour que ces femmes là parce que les 25 000, c'est trop peu et nous avons e pour effectivement difficulté ordre ak GIE leen jël. waaw stade stade bi dafa dafa ak GIE pour l'entretien. dafa signé entretien ak GIE bi GIE bi tax ñun ñu bëgg ci waxtaan GIE lan mooy difficulté bañ di fay ay vingt cinq mille par mois. mais stade bi xanaa moom mënul am am na ngeen di privilégier sous-traitance stade bi mënul jël. sous-traitance parce que finalité bi mbay.

a bi ah moom la jël de pour sa ndigal moom bu ñu mel. matar kon kay. jëfe rek moo des. dinañ leen jël ñoom ñëpp ñoom diis mm, yooyu. diis yooyu la région. kon Fatou Bintou incha allah ko régler loolu. merci matar merci beaucoup. léegi léegi li des nag moom incha allah dinañ leen jël